chance bi kenn xamul fu muy jóge nag ba léegi nag du ñu bàyyi ñu ngi si di dóor waar ba léegi di gën a yokk entraînement yi. salaamaaleykum waa Sénégal maa leen nuyu di leen sant yéen ñëpp maa ngi tudd Pape Lassana Fall di jouer milieu offensif dëkk Médina quartier biir Sandiaba sama parcours nag daanaka bëri na yàgg nañ joué si football instant yi maa ngi dooree euh, école football Ousseynou jóg ay poussin lañ démarré foofu ba cadet sax jël fa ay trophée jël fa tamit ay meilleur joueur daan joué ji ay tournois yu bëri sax ba ñenn ñu bëri fa lañ ma commencé xam sax si laa dem nag commencé joué cadet Sandiaba jël fa meilleur joueur tamit 2009 après ci laa déclenché senior après fa la ma ñëpp commencé xam na après ma dem Asmamou joué naa fa championnat junior ak senior yëpp def fa ay parcours tamit daanaka daal fi ñu jot a jaar bëri na trop euh, football bi mi ngi nii mais chance bi kenn xamul fu muy jóge nag ba léegi nag bu ñu bàyyi ñu ngi si di dóor waar ba léegi di gën a yokk entraînement yi. di xaar yàlla suñu borom nag lu mu wax rek après ñu xam ni lool la. waaw sama succès nawetaan moom neexoon na trop bi may débuté cadet ba senior parce que cadet jël naa fi meilleur nekk naa finaliste 2009 senior ñu ñëw ma nekk euh, ma jël champion zonal ak départemental. neexoon na trop ñu dem ba régional ñu demi-finale. mooy fente bu xandaal demi-finale bi waaw newoon na match bu ma marqué sax stade bi ñëpp doon xaar ku ñëw sax da naan xandaal day gañe sa mais tey jii ñun gëmoon nañ suñu bokk xam ni tey ñun dañoo war a final waaw loolu la yàlla def tamit match boobu ñoo ko mujjee gañe moo ma gën a marqué. Euh, sama premier voyage maa ko defee Dakar Sacré-Cœur euh, Papu Assane ñu koy wax Dame Mbodj ku ko xam-xam ko si ancien international ne woon Jaraaf capitaine Jaraaf malgré que moo gën a tiitré sax si Sénégal bi ñuy wax mooy dañ toogoon un jour rek mu wooñu man ak cinq personnes sax si quartier bi fii rek mun nañu am na ay tests ñuy def Dakar Sacré Cœur waa Nike ñoo ko organisé quoi après si laa dem euh, ñu jox ñu ay feuille inscription ma ànd ak piquet ñu dem test yi ñu ngi fa fekk cent personnes ci cent personnes yooyu ñu ngi si war a jël cinq léegi yàlla def si cinq personnes yooyu yàlla boole ma après si laa dem gars yi gars yi jël ñu foofu cinq yi. entraîné nañ Dakar Sacré-Cœur pendant deux mois sax si junior yi foofu quoi di waajal test naay test naay gi muy war a tàmbalee Johannesburg Afrique du Sud mais après euh, bu ñu la sélectionné da dem Angleterre mais malgré que dem naa ba foofu def test participer dem naa ba final mais malheureusement ñeneen lañ choisir quoi mais amoon naa fa ay contacts yu bëri. comme Kaiser Chiefs bi ñuy wax foofu mu ngi Afrique du Sud foofu Orlando Pirates tamit amoon na ay yu bëri ñu doon contacter mais comme Joseph Koto la ñu àndaloon après moom moo yoroon contact yooyu quoi mais ba léegi nii après ñu jóge foofu nekkaat ci compétition yi di gën a jouer di gën a wane suñu bopp quoi parce que ñun tey yàlla yombal nañu qualité yi mi ngi fi dañuy ñaan rek yàlla suñu borom gën a yokk affaire yi. mais tey ñi contact yooyu boobu ba léegi ñu ngi doon xaar sax mais lépp ci couteau la basé woon parce que testinaa yooyu dafa amoon doole bu ñu la ko jëlee après académie Londres bi ngay intégré amoon nañu si joto a dem benn moo si dem na parce que test yooyu dafa difficile woon bu doon test individuel sax tey jii daanaka kenn waxatu ko mais test yooyu dafa difficile parce que test de groupe la bu ñu nee trente cinq la ñuy jël bu ñu nee cinq benn lañ ciy choisir boo xoolee Afrique. benn lañ choisir mooy booy Afrique du Sud yi moom moo jot a dem Angleterre jot na intégré ci groupe kii bi académie Nike mais ñi ci des amoon nañu ay contact malgré que jàng naa lu bëri ci loo xamante ne day améliorer sa football par rapport ak bi ma euh, bi ma jotee nekk fii nii parce que gën na yokk sama niveau daal parce que li ma dem foofu li ma fa fekk. dama fekk ay coach yoo xam ne ay haut niveau lañ ay agent yoo xamante ne euh, macha allah tey jii bu ñu la seetaanee sax dañuy apprécier du benn du ñaar yoo xamante ne ay agent yoo xamante ne ñu ngi waroon contacter mais Koto comme moom moo jëloon responsabilité boobu moom dafa ne woon bu ñu ñëwee Dakar après dina dina régler yenn détails yooyu quoi mais malgré que nag ñu ngi ko doon déglu ba léegi mais euh, loolu lu paase la ñu ngi si leneen instant yi nii am na ay contacts yoo xamante ne sax ñu ñëw ndànk-ndànk gis na bi pour man niveau bi dafa war a gën parce que daanaka année bi mu jee nii sax xaw na tane sa tey jii football dafa nekk loo xamante ne genre liggéey la quoi mais des fois damay gis Ligue bi des fois ni xam nga tey ñu fay la suba duñu la fay contrat yi gars yi dañ ko war a respecté des fois da ngay gis jouer pendant six mois équipe bi amel la ay arrière salaire loolu c'est pas normal quoi en tant que bu ñu nee ligue pro ligue pro dafa war a professionnel tey jii joueur bu ne boo signé contrat contrat dafa war a leer mais pas tey nga signé suba ñu naan lan non fayaguñ la ak yooyu noonu xam nga rek day tax yow mi boo jugoon pour dem entraînement doo sawar. waaw ah, Pape Tamsir Fall ni nga ko xamee sama papa ancien capitaine du Jal Diop Euh, yoroon na SIDEC tamit Jal Diop nekkoon na fa en même temps comme entraîneur ñu xamee ko si football Sénégal tamit nekkoon benn défenseur boo xamante ne ba agressifoon tamit waaw yàgg na si championnat bi tamit jël na fi tamit ay trophées nekk fi en même temps coach nekk en même temps joueur ci football. mooy bi ma demee agriculture bi rek man moom jàppoon naa ni man la ñuy choisir sax ñi war a dem Londres mais yàlla moo def lool mais malgré que dama si ci final dernier dernier essai yi kon tey jii man wóolu naa samay qualité quoi. waaw ah, sama projet mooy réaliser contrat bi rek instant yii nii moom rek la ñuy ñaan te incha allah gëm naa ko dina ñëw de. am nañu projet yu bari yu nekk ci bopp yi mais dañuy ñaan yàlla yàlla jàppale ñu si rek incha allah. aljor ah, Medina yi qualité yaa ngi fi de am na ay booy yu mën football macha allah tey jii dama leen ñaan rek ñu gën a jàpp entraînement yi dem dugg ci club yi ba ñuy toog rek ay joué ay match koñ yeeg yooyu noonu yooyu jëmalul football kanam da ngay ñëw dugg si club yi dem football gars yi gis say qualité. parce que tey jii booy yi bëri nañ macha allah ku si nekk am nga say qualité fii jour boo gis ku nekk am na li nga mën te tey jii coach boo gis tamit am na jour boo xamante ne boo ko gisee dina la apporter dara quoi dañu ne kii ay qualité am soxla naa ko moo tax booy ñu toog war nañ dem dugg si club yi jouer ñi ñuy gis leen talent talent bu ko gisee nii nit da ngay gis xam ne kii am na talent kon tey jii waruñu caaxaane suñu talent quoi topp football koñ yeeg yi malgré que des fois nga footballantu nii sax pour xaw a jàpp rythme noonu mais club yi bu ñu ubbee championnat yi démarré da ngay dem nga jouer wane say qualité yàlla dina leen jàppale incha allah ñun ñëpp ci mag ñi fi nekk moom loolu moom seen rôle la quoi man pour man tey jii ñoom jot nañ dund milieu pro bi kon war nañ mën a jàppale jeune Médina yi nii si football bi tey jii ñoom comme Sirédia am na baat jaraaf tey jii mënoon na ñëw dugg quartier déggoo sanca ba fu ne ne tey jii booy bi baax na intégré leen si groupe bi championnat Sénégal tam loolu moo koy dundal ñi dëkk ci Médina bi ñi ñëw intégré Jaraaf même bu ñu dee cinq personnes de six de sept tey ji supporters yi dinañ sawar a dem seetaan e diw mooy joué tey kaa ñu dem stade loolu mooy andi popularité bi quoi par rapport ak yeneen club yi comme ay ñaari tali ñi fa dëkk di fa joué dafa bëri moo tax tey ji ñoom bu ñuy joué da ngay naan nawetaan la te équipe bu la mais équipe championnat bi la parce que ñi fa dëkk dañ bëri gars yi dañ leen di xam ku ci nekk sa copain bu ñëwee da ngay diw de tey mooy joué gaaram ñu dem stade loolu mooy indi popularité bi tey di mag ñooñu loolu laa bëggal quoi tey di bu si nekk rek nga jéem a jàppale jeunes yi boo mënee sax dugal leen ci club bàyyi leen foofu ñoom fu ñu waxee rek ñoom ay daanaan lañ gars nañ xam ne kii jour la ma jox loolu laa leen ñaanal quoi tamit ñoom ñu gën ñu jàppale rek. waaw li may tàggatoo mooy xam nga rek yéen waa Midnight TV bi leen gërëm di leen sant ngeen di def liggéey bu nice la quoi ñu ngi ñaan yàlla affaire yi gën a dem ci kanam xam nga rek parce que tey jii li yombul tamit nga ñëw def ko nii gratuitement pour jàppale jeune Médina yi ñun tamit bu yàlla defee ñu ne ay professionnels dañuy gën a jàpp ci liggéey bi mu gën a nekk beneen niveau lool leen lool loolu la ñuy ñaan quoi beneen. jaajëf